L'objectif de objectif am est euh, accompagner l'autonomisation des femmes ndaxte dama les ne sont en ñi de ñu ànd mooy gunge si wàllu politique li ñu yaakaar yëpp mënuma matal surtout en termes d'emploi, en termes d'accompagnement. nous mu metti le moment de vous organiser euh, en assemblée générale en association Nous avons ñu def depuis 2017 juste après les législatives, parce qu'il n'y avait pas de récompenses à leur donner. La seule récompense, c'était de mettre cette association dénommée Femmes, Développement, Solidarité. Nous sommes liggéey nag koy de l'agriculture activité de commercialisation Nous def ñu des transport avec l'avènement des taxis en lieu période bobu invité sen deuxième assemblée générale ministre Sahara Cham, à l'époque ministre de la microfinance muy nit bu am humilité aussi am engagement auprès des femmes surtout de l'autonomisation mu présidé présider manifestation Nous mu une décision d'octroyer nañu financement pour les femmes de 20 millions Nous avons aussi une clé de répartition ci liguey bi ñu tas ay yenn yi ñu renforcer wat sen crédit automobile yokkat si yeneen ñetti auto li ci dess ñu def ko crédit revolving en interne def ay financement personnel parce que lolu sen manin la ko xam jigen ci ni muy liggéey xam nga ne euh, loko ko man na sey jëriñ bopam so xolé jigen ñi nekk di tek table yi di ci yor kër donc ku dimbali jigen rek sa bop nga dimbali lolu nak ñi ko jité won muy la présidente Yassine Ndiaye am ay président zone de secteur Ndeye l'a Camara jiite ouest bi Adja Sagar Traoré nord est bi ñu ànd nag ak seeni bureau vraiment un engagement sans faille ñu cumuler l'engagement politique et l'engagement économique tout en cherchant à leur autonomisation que lañ doon def c'est une assemblée générale ordinaire de renouvellement des instances kune assemblée générale nag da ngay de delloo coloré nous bir coloré bobu nak ñu ràññaa won Zahara bien que nekkatul ministre mais elle est toujours active dans ce secteur étant directrice générale de la CEPEX Nous def ko marraine mu kontaan si lool xam na ne ñun ay góor lañu fàttew ñu ma taxi, sama benn xarit avec qui j'ai cheminé depuis plus de 25 ans Abdoulaye Djei... Directrice directeur général de l'AIBD de Thiès koo xam na ne ba dara dul dara la ñuy ànd ba a def mu def une journée extraordinaire ndaxte euh, au-delà des financements au-delà des activités yi nous xam de nous, bëgg mu perspective d'avenir Nous mettons mettre en place avec tous ces acquis ce qu'on appelle la calabasse de FEDES Nous avons une calabasse qui nous une tournante avec résultats dans le secteur du transport en termes de bénéfices Nous avons def revolving en interne permettre à partir peut-être de la mise en œuvre de cette activité nous def FEDES de quartier FEDES de quartier pour permettre de ñi membres membres nous avons yokkute côté bir pour permettre d'élargir l'ensemble des quartiers qui sont membres de FEDES représentés par Point focaux qui ku nekk boot ay nit parce que c'est l'origine origine FEDES FEDES dañ avons yow membre da 10 personnes nous avons au départ 300 personnes qui ont ne ku le train avance à chaque arrêt il y en a qui montent il y en a qui descendent moo leen dal yàlla def tey ñu am ay gan yu am solo ñu indiwaat la ñu départoon si njëlbeen président Abdoulaye Dieye offrir 5 millions aux femmes pendant ce temps man la ma yàlla wërsëgal aussi def naa ko si ñu def marraine locale ndax nag derrière tout homme il y a une dame sama jabar du tàyyi di ma wax FEDES da leen dimbali ndax jigéen ñi ni ñu sonne si yow loo am rek bokk ak ñoom motax mom mu ñew bay si waaram am lu mu yëkëti jox leen sen marraine d'honneur nga xam ne moo tàmmali woon mbir bi ñew aussi delloo leen ci mbiru liggéey yëkëti 2000 poussins may leen ko pour ñu mettre ko en élevage 2000 poussins tay soko ko élevé dundal ko ba mu mag soko jaayé jaayee bon bon mën na am résultat 5 à 7 millions mais yamul fofu mu tek ci bien mak man aussi je suis dans une société qui est dans la production de la pomme de terre Nous savons vraiment le quota que nous avons sur le plan annuel c'est les sénégalais et les sénégalaises qui les mangent donc jël si jëriñaloo jigéen le du Nous lu kanam de pomme de terre à bon prix bon marché c'est entre 6 000 et 7 000 francs le sac su ma mets 30 tonnes qui correspondent à pratiquement euh, 1000 2000 1400 sacs de pommes de terre vous voyez tout de suite les résultats. donc loolu day un flux financier Nous xam dañ bénéfice suñ koy mais le retour permettra encore d'avoir de l'autonomisation pour def ko si continuer pour atteindre cet objectif donc loolu tey un résultat et ak perspective yi nga faire. ne ne fas yéene nañ ko gunge man nag FEDES dama si nekk membre di leen gunge mais bokkuma si ndax mbiru jigéen la mais as gor Je suis ay gor doo leen abandonner jamais en chemin te loolu moo euh, tant que je vivrai je continuerai à accompagner ces braves femmes pour que la ñu yaakaar si man te mënuma kaa jot si wàllu emploi ma mën leen ko jot jox si wàllu développement ba mënuñu am liy njëriñ di njëriñ seen i waa kër seen waa borom kër yi xam na ne ki ñuy topp fàttewu leen leen xel te lu mu am lu baax muy nit ñu baax dina leen indi boole leen pour que ñu mën a